TV maa ngi taxaw ak les deux meilleurs joueurs sax laay wax yi nga xam ne ci match bi muy euh, sama sama sëriñ euh, Papa Wali maa ngi lay nuyu di la ziar. maa lay fay maa lay nuyu di la ziar. waaw di ziar jaxam maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay ziar Koutias. waaw di am mbégte nag di tey question bi may def yéen ñaar sax laa koy boole muy tey jii nii Sonacos premier match am Ligue 1. Mm-hmm. tey jii ni ban sentiment ngeen am di dajeek Jaraaf fi champion l'année passée. waaw ñu bon on s'est bien préparé quoi pour waajal euh, match bi nga xamante ne contre Jaraaf la parce que euh, équipe bi nga xamante ne moom mooy jugee Ligue 2 yeeg en nekk premier Ligue 1. bon c'est normal am na ay nouveau yoo xamante ne ñoom ñoo fi ñëw moom ancien la nag ci équipe bi quoi. Mhm. parce que moom boo xoolee préparation am sax dafa xaaw a métti parce que dafa feebaroon quoi. comprendre nga ñun ñi nga xamante ne ñoo si nekkoon boobu ba léegi di liggéey. ñun moom pare woon nañ pour match bi nga xamante ne la parce que Géeg Jaraaf aussi fierté la quoi parce que Jaraaf du équipe bu ndaw. Mm. équipe bu mag la te ñëppay ñëw toog di seetaan. te ku si nekk boo fi nekkee war nga mën a wane sa qualité lépp li nga xamante ne moom nga mën. Mm. parce que chance yaa ngi fi xamoo lu ne lu ci mënti xew rek xam nga sélection yaa ngi fi aussi. xam nga bon ñun dañuy continuer job te xam premier match rek la lii du dara. des na ay yeneen match des na vingt cinq journée encore yoo xamante ne war nañ si mën a pour li nga xamante ne moom lañ bëgg si championnat bi ren ñu am ko. Mm-hmm. waaw merci merci Diakham kàddu yi rafet na ma ñëw ci Papa Waly mën naa wax ni sax l'homme du match laa la mën a wax parce que tey gis nañ tamit euh, yu bari maanaam ay occasion yu bari yoo xam ne tey ji nii ci yow la jógee tey ji nii bon sentiment tamit nga am comme li ma la waxoon rek ci commencement bi ak tey ji nii li nga maanaam mën nañ wax ni am na lu bari yoo xam ne tey ji nii peut-être manque de tuuti de de lucidité rek moo tax dugaloo ay but. waaw sentiment bi may am d'abord euh, bon première journée championnat joué ak Jaraaf daw moy vice euh, champion Sénégal mhm. ensuite euh, jarab équipe bu mag la mhm. bon té ñun tamit daw ñun ñoy ñun ñoy champion Ligue 2 té match bi danaka dañu ñëwone pour juste ne pas perdre mhm. am fa un point wala trois points té l'objectif a été atteint quoi wa géré nañ nul bi bon match bi metti woon trop ak état terrain bi et tout mais bon on gère quoi bon euh, ak match bi ni lucidité bi dafa manqué lool parce que préparation bi xawon na métti trop sama côté. bon amoon ay hauts et bas parce que dama xawon na feebar touti. bon motax mais avec le temps dinañ ci gëna ñëw aussi dinañ gëna a lucide devant les buts pour permettre équipe bi mu nekk aussi classement bi. parce que amna solo parce que équipe bu ñu yor ñun amuñu objectif maintien dañu ñëw pour nekk champion té loolu lu mën nekk la té liggéey rek moñu ko mëna jox waaw équipe baa fi groupe baa fi aussi. voilà waaw loolu rafet la suñu dernière question rek maanaam moy comme ni ngeen wax daaw Ligue 2 ngeen jé tay ñëw ngeen gis premier match ngeen joué ko Ligue 1 tey jii nii am na différence boo leen sentir ci bi ngeen di jouer Ligue 1 bi ak Ligue 1 bi. waaw bon ñoom pour moom am na différence quoi parce que Ligue 1 boo xoolee équipe yu si bëri tactiquement lañuy ñuy gën a taxawee ak par rapport ak euh, Ligue 2. ñëpp dañuy ñëw pour yéeg. parce que fii nii am na objectif yoo xamante ne mën nga ko am. da ngay chercher champ euh, pour être champion. comprendre nga su mënul nekk nga assurer sa maintien dàqante si coupe bi. loolu rek pour bañ a wàcc quoi. waaw ah. dëgg la waaw kontaan nan ma ñëw ci Papa wali waaw comme rek euh, comme même question bi la rek. waaw euh, Ligue 1 bi daanaka moo gën a quoi côté tactique technique ak mm. physique mu dafa gën a parce que bon euh, Ligue 2. am na ñiy xeex maintien ñiy xeex monté dañoo bëri match yi day métti mais fii dafa tactique dafa technique foog nga pare côté yëpp aussi psychologiquement aussi des fois da équipe yoo xamante ne lañ donc si tour mais foog ñu pare mentalement moo ñu jàppale si match bi te j'espère que dinañ continuer si lancé bi. Mhm. Sénégal tamit day dem Coupe d'Afrique CHAN tey jii nii seen xel wala ngi ci.

voilà ok merci jërëjëf kontaan nañ ci yéen merci beaucoup. tax ma jël seen numéro après